loolu c'était ridicule de le mettre dans un document boo xam ne tu essaies de de de de en œuvre wala da nga bëgg a wane Sénégalais li nga def dans 100 jours ak BRT bi li ñu ko wax yëpp pour man loolu mënoon nañ ko bàyyi carrément mu nekk projet mise en service naturellement doo fekk BRT pare sëñ bi doo ko bàyyi mu daw loolu franchement loolu pour man du bilan donc bu fekkee da nga moo tax ma ne 100 jours yi ñoom waru ci woon war ñu woon dugg ci jéem a def dans les 100 jours l'autre chose mooy gis nga euh, euh, euh, Diomaye fay li mu doon def le président Diomaye Faye li mu doon def keroog entretien boobu dafa mel ni moom moo doon def DPG à la place du premier ministre moom moo ko wax léegi moom moo ne Diomaye da doon président Diomaye da doon joxe l'orientation orientation la doon wax fu mu jëmee réew mi te loolu normalement moom lañ doon xaar ci DPG au premier ministre donc li premier ministre waroon def defu ko ce vide là moom la Diomaye ñëwoon pour combler parce qu'il fallait nécessairement Euh, euh, dire quelque chose au Sénégalais loolu moom la premier ministre waroon def def ko moom il préfère ale à Colobane jeunes yi wër ko muy wax ay waxu yoo xam ne amul bopp amul genn dañ laa fal pour nga nit sàcc na sàcc na suñu alal yow tu as tous les pouvoirs tu ton ministère ministère ministère de la justice ñu war a def seen liggéey mais jëlal document yi jébbal leen ça sert à quoi nga gën taxaw ci bécc mi léegi ne document Aliou mi ngi sama table ma

xam nga xam nga xam nga fonds politique yi xam nga fonds politique bi nga ñëw da ci fekk ay urgence donc il fallait gérer les urgences d'abord avant de partir gérer les choses yi nga xam ne mooy réduction des comptes on veut pas connaître non attendez-moi on va on peut pas connaître les mêmes erreurs que l'ancien régime avait fait dañoo ñëw rek attaquer le dossier Karim Wade fu mu leen yóbbu seen cinq premières années il n'avait pas travaillé il n'avait pas de bilan seen cinq ñun nag dañu fay fekkoon ay urgence urgence bi mooy président de la République waxoon na ko sax nee na su ma ñëwoon woowu moon directeur Sarr ak directeur Sénélec amaana damay toog une semaine wala deux semaines après courant commencé couper Sénégal mu ne kuj kamaj ici yéen xam seen problème mooy yéen yéen yéen yéen yéen yéen vous yéen vous on met pas on a on n'inverse pas les choses on met les choses de A à Z. on ne quitte pas Z pour aller à A. yéen les urgences chassent vos priorités yéen xam nga xamee woon urgence ak priorité. xamee urgence ak priorité moo waral tey ñun ñu ñëw. courant coupé wul xam nga fonds fonds spéciaux yi xam nga da euh, président Ousmane Sonko dafa dafa ci waxoon lu am solo. loo xam ne moom tamit ci pas-pasam yi la bokk xam nga gouvernement lan moo tax ñu leen arrêté ñoom dañoo war a sant yàlla sax ci li ci li du opposition sax laa tuddee ay ay journaliste ah ngay dégg ñooy nekk di wax ak quelques membre peut-être de l'opposition euh, ñooy nekk di wax Ousmane Sonko li muy waxoon bu ñëwee toog bu fekkee à chaque fois li mu waxoon du ko def gars ne ak garaawul utal ko lay ñoom dinañ perte seen programme de vue te duñ ko xam parce que bu fekkee lépp loo defoon rek bu jotee nga war koo réaliser réaliser woo ko. ñëwal ci kees à chaque fois nga def un an deux ans nga jàll te doo xam ne yow. ñëwal ci kees noire bi nga doon wax ñëwal ci kees noire bi nga doon wax xam nga Ousmane dafa taxaw ne carrément loolu dafa xaraam baatu xaraam la utiliser lu xaraam ti faaxan tey président Diomaye fay toog ne léegi loolu moom wax dëgg yàlla nag présidence da kaa soxla pour am yoo xam ne da ko ci da ko ci faj. waxu fi fi fonds politique fekku ñu fekk ñu fi dara Ousmane Sonko daf leen ne les fonds politiques ak caisse noire président de la République dañ koy remplacer par des fonds secrets et des fonds et des fonds spéciaux. mooy permettre tey non non non non non non non non non Euh, mi ngi mel je continue l'argumentaire je continue l'argumentaire je continue l'argumentaire d'Ousmane Sonko je continue l'argumentaire d'Ousmane Sonko laisse-moi rek ma la argumentaire Ousmane Sonko s'il vous ne tey ñun suñu bëggoon espionner benn pays étranger ci fonds spéciaux yi la tibb ñu mën a espionner pays étranger mu ne tey bu ñu demoon comme épidémie daal ñu lu mel ni Covid wala leneen catastrophe naturelle ci fonds spéciaux yi la ñuy jël ñu ñu ñu ñu financé loolu mais c'est des choses yi nga xam ne tey ni ko président doon dépensé te du am contrôle mu ne dañuy teg IGE mi nga xam ne moom moo nekk à la présidence ak des personnes indépendantes ñoom ñooy suivre loolu loo ci dépensé. da da nga koy justifier mais ñun fekk ñu fi dara d'abord déggoo ñu ne la fekk euh, ñu fi caisse noire fekk ñu fi caisse noire bi président wax keroog ne def na ko fan la jëlee xaalis bi mais président mu déggoo mu ne la moom salaire bi ñu koy fay moom la yor. ci dund nii loolu yaa ko président. président bi mu yor moom. loolu ma non boobu dañoo dugg non déglu ma non déglu ma déglu ma ko sax dañ koo laaj sa patrimoine bu leen sama patrimoine li ma waxoon ci élection yi yokkuwul wàññiwul gannaaw salaire bu ñu may fay mais bëggul njëkkante conseil constitutionnel parce que dafa respecté. Seyna Ibrahima lex bul nangu toog ci plateau. di wax waaw bul nangu toog ci plateau di wax loo xam ne wóorul la wala président moom ci boppam sax waxoo ko. dama ne Sonko dafa taxaw ne loolu dafa xaram di faa xam. ne loolu moom xam nga lu xaram moom ñëpp xam nañ ko. loolu waxoo waroo ko laal sax waroo ko waroo ko jege laa taxar bu si naa loolu waroo ko sax jege mais loolu la président Diomaye Faye taxaw tey layal ne ah loolu kat wax dëgg yàlla président da ko soxla pour am mu ci def ci la doon justifié ba wax ni am na sax ku amoon opération bu mu war a def moom mu jël ko en charge ba woo nañ ko balaa ma ñëw ci émission bi ne ko ah opération boobu kat jaar na ci yoon alhamdulilah c'est-à-dire pour dire que ñoom ba ñu nekkee ci ba ñu nekkoo ci ñu nekkoo ci opposition ba ñu nekkoo ci opposition dañ wax yoo xam ne ñoom au fin fond gëmuñu ko wala jëluñu le temps mérité si maanaam xalaat ci ba mu ñor ñu doon populisme la populisme la populisme la doonoon xam nga ñoom il tire sur tout ce qui bouge. ñoom ñoom lu ñu mën a gis rek ñoom lu ñu mën a gis. xam nga xam nga populisme boobu baax na ndax en dix ans moo ñu conduire au pouvoir. xam nga xam nga Pastef a fait dix ans de dénonciation et de délation. et de proposition. ban proposition. mais ñun à chaque fois qu'on a rendez mais nangu ma rek yow boo ko waree jëfe doo ko jëfe mais déglu yow ñun à chaque fois ñu a jàkkaarloog Sénégal nous sommes l'un des rares partis au Sénégal buy proposer une xam nga proposition jariñu dara bu fekkee boo ko war bu temps wu mettre en œuvre jotee doo ko mettre en œuvre te ñoom li ñu gis mooy ba ñu toogee ba tey xam nga loolu la ñuy wax naan cent jours 100 var ñoom ba ñu toogee ba tey lépp lu ñu waxoon Sénégal ne dañ koy def ba waxtu yu jotee ngir ñu def ko defuñu loolu leneen lañ def muy muy appel à candidature loolu nit ñi dañu ko wax ba mu booy seen nopp conseil supérieur de la magistrature ñu amoon ci une position tranchée tey on est dans le ni oui ni non le président dit que je ne suis pas obsédé les paroles des magistrats méritent d'être écoutées nangam nangam Macky Sall li rek la fi doon def c'est-à-dire day nuancer après bu bëggee génn ci mbir mi doo tëb tëb rek ne ah li waxoon naa ko dama ko def il il part d'abord par une nuance commencer di nuancer maintenant noonu la ñuy def léegi ba ba ba ba génn ci affaire bi te te te te duñ ko yëg donc boo doon jël benn par benn ak te appel à candidature moo ci a nekk scandale xam nga lu tax parce que dañoo jël ay postes yoo xam jox ko des sénégalais yoo xam ne yàlla xam na ni y a des sénégalais beaucoup plus méritants yoo xam ne li tax sax xëy na ñu adhéré ci projet bi wala ñu gëm ko moo ñoom dañoo jàngoon ba yor seen lijaasa mën a servir à l'international bëgg a servir seen réew amuñu woon bunt Macky Sall fàttoon yëpp caxat caxate réew mi ñu dégg euh, Pastef ne ñoom bu ñu toogee dañuy ubbi bunt yi bu ñu bu ñuy jël domaine boo xam ne kat Aliou mii moo ci ëpp xam-xam ñun ñett ñii ñëpp bu ñu neexee ñu compétir teg dugal suñu dossier Ibrahima compétir Abdou Kane compétir euh, Aliou compétir ñu xool ne ah Aliou ci jaar-jaaram ci xam-xamam moo gën a mérité pour yor poste bi ñu jox ko ko. am na Sénégalais yoo xam ñoom loolu lañ gisoon pour jàpp ni kon c'est le moment de servir leur pays mais malheureusement ba ñu ñëwee ba tey da gis appel à candidature lan lañ def poste yëpp ki l'intelligence politique nga gis ñuy def li ci gën bi bi may exemple bi may joxe rek pour état yi li may wax Ngagne Demba Touré directeur des mines mais xoolal ki ko remplacer Ousmane Ousmane Cissé tollul fii ngañ Demba Touré tollu ko fii moo ko mën ëpp ko xam-xam ñaar fukki junni yoon ci domaine boobu kooku kooku